ba tey horizon màggal ci Tawhid TV rédaction bi ñëwaat ànd ak yéen ci jaar-jaaru njabootu Serigne Touba tey nag Pape Amadou Diaw daf ñu defal portrait ki nga xamante ni moo di ñeenteelu xalif Serigne Touba di sëriñ Abdou Khadre Mbacké ñu teewlu ko. mu doon doomu Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke ci yoonu Morita Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mi ngi gane si àdduna benn ajjuma ca Daarul Alim gën koo xam ci ndaam en 1914. waajuram bu jigéen di soxna Aminata Bousso doomu Serigne Bousso be rakku soxna jaara ki meññeem Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasoul mooy koo xam ne ni si takku woon la ci charia ak suna Cheikh Abdoul Khadir Mbacke séddiroon na ñëpp ci charisme ak piété ak humilité mu doon ku dëggu ci diine dëggu ci ñàng jàngum lislaam ba tax na dundam yëpp moo yore woon imam gi fële ca jumaay Touba loolu tax na sax magam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daf ko jëloon bi mu agsee ci xalifa bi daf ko tegoon bu doon imaamu grande mosquée Touba muy jiite julli yi nga xam ne si moo fa doon am ajjuma bu nekk ati fête religieuse yi moom nag nekkoon na quatrième xalifaawu Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Abdoul Khadr Mbacké amoon na na ñaar fukki meññeef ñoo xam ne ni si fukki jigéen ak ñaar ñu ci woon tey jii nag ñooñu ñooy nga xam ne Baye muy Serigne Cheikh Mbacke xalifaam Serigne Cheikh Moustapha Mbacke imam de la mosquée Massalikul Jinaan bi ci Dakar Serigne Fallou Mbacke imam ca Touba Serigne Bassirou Mbacke porte-parole xalif général des Mourides nekkaat tamit président comité d'organisation màggalu Touba Cheikh Abdoul Khadr Mbacke mi ngi génn àdduna ca Touba après bi mu téye xalifa gi ci fukki weer ak benn vendredi 18 mai 1990 à l'âge de 75 ans comme waajuram bu ko mag ngi ñu denc ca jumaay Touba yoon wi nga xam ne ne sii fi la doon jaar pour ñëw jiite jumaa yi dañ ci doon dégg baatam mi jiite julli gi